dañu bokk ndey ak baay wala doom ak yaay mënuñoo bokk benn conseil municipal ñu def forcing ñëw toog la loi l'interdit ñu voté ci premier adjoint ba on l'a signalé ñu wax ko préfet préfet tànqamlu ñu voté mu ne nañ compté ma ne ko vote bi baaxul parce que loi day tere lii kenn da cay démissionné keneen remplacé ko mu bàyyi mu jàll ñu ñëwaat li tubaab di wooyee procuration boo feebaree wala nga am ngànt danga nga mu wutim kayit dem police ñu légaliser la ko nga ne man kat Mbacke Gueye mii laa bëgg man mu woteel ma bu bis ba jotee ñu am genn soxna bu bokkaat ca ñoom lañ bind ca liste ba ak turam bokkul ñu signaleeti ko préfet moom sax amu fi woon benn doole maire présidé waaye bëgg a jekkal rek ak jox ko tam cëram en tant que autorité publique ma signalé ko ko te su ma neexoon dama naan doo voté mu tànk am looti waaja votel ndaw sax mu dul yoonati ñu ñëw di compter ñu ne leen compte bi du fi am ndax vote bi baaxul looloo indi ciowli nous avons demandé à la police mu génné ñëpp muy ñin comme muy ñom bala musiba di fi am ndax ciowli commencé woon na am sàndante gurtu ndox yeeg lu né ñu taxaw tankam lu rakko Macky bi Aliou Sall tok fee li indi coow li ma xamal ko nag moom Aliou ne ko nit da ngay nangu ndogal ñaari ndogal a wàcc seen kaw wàccoon na ci kaw waa Géejawaay 2014 te dañ koo nangu wàcc na bi yoon seen kaw di ko nangu te dinañ ko nangu nag parce que waa Géejawaay dañ leen wax ne leen yéen a fi ne ñii dañoo bëgg ñun bëgguñ leen waaye yooyu askan wi lañ bëgg lii am ñaareel ba mooy yàlla mooy dogal fii lañ daje cité Aliou Sow man ak moom ñoo woon te defante ay salaamaaleykum moom ca kàddoo mu ne 2014 bi ma fii ñëw ñëpp dañ ne woon lii mënta ne waaye yàlla dogal ko moom mooy wax de 2022 ñëpp dañ ne won gone gii du ma yàlla dogal ko kon yéen ñi ma àndal jàpp leen ne kon yàlla ko dogal kon moom waxu mbedd la doon wax setum ginaar mu ñëw fii tey bëgg a def safaan wa ñu koy wax ne ko bu bëggee mbir yi nag yomb metti na nag metti na moom waaye pour ñu gën ko koo oyofal na dem rek jaar par la grande porte daal di dem dem gu rafet am grandeur comme ni mu ko defee waaye bu mu ñàkk ba pare bëgg a ñànki ndax mairie bii nag doomu géejawaay nangu nañ ko loolu lañ ko doon wax bëgguñ ci nag benn coow ndax li fi xew tey moom gënalul kenn du presse bi du ñu fi nekkoon ñu koy wax nag mook ay nitam salle bii ñoo fi daan toog tey ba ñu woowee journaliste yi ñu ngi wut ay ruq-ruqaan yu ñu dugg loolu rek wane na ni kon ñoom yàlla yemale na ko fa te ñi nit duñ fi toog ba illaa yomi diin bi sa ngee ñëw yàlla dina wut fu ko yemale ndax ay dix ak quinze mandat moom ñun ñaanuñu ko yàlla loolu moo xew tey fii du ñu bàyyi doom ak yaay nekk ci ab liste électorale te loolu loi bi tere ko ñenn dinañ fi voter par force te ñu jëm ba quatorzième adjoint ñu ne duñu ko naw vote bu njëkk bee bon fala lay yem duñ bàyyi muy jëm ñaar di bon ñett di bon ba kañ suba nag incha allahu rabbi ci àjjuma ji la ñu secrétaire général bi jox convocation nañu ca la ñu war a joxante lengay man ak Aliou sal fii ci digg maire bi ñun nag incha allahu rabbi danañu ñëw buñ jullee jumaa ba pare 16h incha allahu rabbi fii su ñëwee ñu ñëw bu ñëwul dinañu ñëw te secretaire général bi ngi may dégg convoqué naa ko léegi ci benn bureau ne na jël disposition yëpp pour cérémonie bi nekk lu jekk moom nag forcé wuñ ko gis nañ fi ay passation de service yoo xam ne ñañ daan daan bi da leen mitti day mitti seen yaram ba duñ mën a ñëw bu ñëwee nice bu ñëwul tamit na ko secrétaire général organisé suba ci àjjuma ji may wax nag mbooloo mi ñu àndal nañu bokk nañ ci maire yi ñu gën a teg bët rakkam dee lañ wutu mbaala rakk ja mën ñun dinañ ko mën mën nañ lu ko raw li koy maye nag mooy liggéey ba tax na àjjuma boo leen jëlee lengay Altine, 8 h au bureau.